vidéo bi Tabtabsa di partenaire leader bu diaspora 221 moo leen koy may xibaaru bësu tey bi yëmbok àjjuma fanweeri fan ci weeru septembre atum 2022 dañu ko fas ne doore ak li nga xamante ne moom mooy coowal viol bi nga xamante ne nag jamono jiile moo topp influenceur bi nga xamante ne moom mooy Kaliphone Sall ni ki démb nag la ñu ko placé su mandat de dépôt ci li nga xamante ne moom mooy wàllum ku et blessure volontaire bi ñu koy toppee jamono jiile nag ki nga xamante ne moom mooy procureur de la république mu ngay sàkku itam ñu daal di nag placé sous mandat de dépôt soxna si nga xamante ne moom mooy tuumaal Kaliphone Sall coowal viol di ki nga xamante ne moom mooy Adja Thiaré Diaw libération mi joxe yi le xibaar na nag loolu procureur de la république moo koy sàkku jamono jile nag Kaliphone itam daal nay génn ab certificat médical boo xamante ne nag nee na gaañu gaañu yi nga xamante ne soxna soosee moo ko ko def moo waral mu daal di koy wut dem na sax ba daal di porter li nga xamante ne moom mooy plainte ci dóor yi nga xamante ne soxna soosee di Adji Thiaré jaw daal na koy dóor altine bi ñu dëgmal yem moom ñetti fan ci weeru octobre la ñu fas ki ne atti ki nga xamante ni moom mooy Kaliphone sàll la ñu ko def nag métti na ko loolu ba tax na sax nee na dina tàmbali ab xiifal fa nga xamante ni nag moom mooy ca kaso ba ngir tuuma bi nga xamante ni daan nañ koy teg ci ndoddam bu ñu jógee ci mbiru Californie ñu dem fa nga xamante ne moom mooy ca kaw Kaolack foofee nag jéeya bu métti moo fa daal am benn dal nag moo fa daal di daanu ci benn njaboot boo xamante ne nag jamono ji ñeenti doomi aadama ñàkk nañu ci seen bakkan li nga xamante ne nag opération yi mu doon wéy fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Kaolack ñi nga xamante ne jot nañ leen fa génn bokk na ci ab xale boo xamante ne juróomi at kott la am yéex nañu sax gis ab néewam boroom kër ga nga xamante ne nag mu ngi doon wuyoo ci turu am Mamadou Sow moom mi le nag moomoon bile immeuble itam ab néewum génn nañ ko am na nag beneen xale bu góor boo xamante ne nag juróom fukki at la am moom mi le nag génn nañ ab néewum ci li nga xamante ne moom mooy yile décombre mu nekk nag tiis bu métti boo xamante ne daan nay am ni kiy démb fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Kaolack beneen tiis bi ni mel la ñu nemmeeku fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Ndakaaru ndiki démb nag benn kaaru Njaga moo daal di nag këpp ba ñu bëri daal di ci jëlee gaañu gaañu bokk na ci ay soxna ay góor ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay xale loolee nag ab accident boo xamante ne nemmeeku nañ ko fi niki démb gannaaw accident yu metti yi nga xamante ne amoon na fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Bandia ca Tambacounda ak bu mujj bi nga xamante ne amoon na fii ci diwaanu Grand Mbao mu nekk nag ay tiis yu metti yoo xamante ne ne jamono jile dañuy faral di gis ay accident yoo xamante nag ay doomi aadama yu takku dañu ci ñàkk seen bakkan gannaaw jéye bi nag gendarmerie daan nay ñëw ci bile béréb ànd ak sapeur pompier ngir nag daal di nag tàmbali di sauver ñi nga xamante ne nag gaañu nañ ci bile accident ni leen ko waxee nag démb la am fi nga xamante ne nag moom mooy ci autoroute à bi yoon ba jëm fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Colobane ca diwaanu Mbour la ñuy dem foofee nag drogue boobee ñu volet mu ngay wéy di def ay ravage gannaaw rek ba ñuy gis ñu koy jëfandikoo ci li nga xamante ni nag moom mooy boîte de di ko jëfandikoo fa nga xamante ni moom mooy ca diwaanu waa Saly loolee nag na fa coow ndaxte nag benn xale bu góor boo xamante ni nag ab commerçant la di wuyoo ci tur Ibrahima Samb fekk nañ ci moom bile drogue fekk ci moom li nga xamante ni moom mooy ecstasy moom mi la nag gannaaw rek ba ñu ko laajee dafa ne nag ab garab la boo xamante ni daf ko jël ngir anesthésier wàccee li nga xamante ne moom mooy méttere bi nekk ko koy jaay juróomi téeméer kottu la génne daal di koy jaay li nga xamante ne moom mooy extase bi lee daf ni li nga xamante ne moom mooy métti di anesthésier li nga xamante ne moom mooy douleur loolee tax mu daal di koy jënd waaye nag naanewul ndox benn yoon ne loolee nag ab drogue la waaye nag taxul mu mucc niki démb nag ñu ngi ko doon àtte fa nga xamante ne moom mooy ci tribunal grande instance bu Mbour ki nga xamante koy layool nee na nag ki nga xamante ne moom mooy ab client njaboot gi mu bokk kenn mususu jëfandikoo bi lee drogue xamul sax lan mooy drogue waaye nag terewul benn yoon Ibrahima Samb ñu daal di koy daan fukki fan ak juróom yoo xamante ne nag da koy jot tëdd ak gannaaw rek ba ñu fekkee ci moom li nga xamante ne moom mooy bile drogue ñu wax ci wàllum politique ak ñaar ci député yoo xamante ne nag ñu leen fale yàggul fi nga xamante ne moom mooy ci ay ministère yu nekk ci réew mi ñu mën cee tudd Yaya ak ki nga xamante ne moom mooy Sira ñoom ñaar ñëpp ñu daal di leen a dugal ci fonction publique ñu bokk itam ci coalition bi nga xamante ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar Yaya Diallo mi la nag ñu daal di koy nag recruter fa nga xamante ne moom mooy ci ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ci li nga xamante ne nag moom mooy département bu développement communautaire communautaire ak li nga xamante moom mooy équité territoriale les échos muy joxe yile xibaar nee nag ñoom ñaar ñëpp nekk nañ ñoo xamante dañuy ay parlementaire waaye nag ku ci nekk am nga poste ci li nga xamante moom mooy yile ministère naka la def nag ba mën a nag ku ci nekk liggéey bañ la jox nga daal di koy téye mu nekk nag ay cumul de fonction yoo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu Yaya Diallo tamit fàttali nekk na vice présidente bu commission xamante ne moom mooy euh, présidente bu commission de santé et affaires sociales nekk nag loo xamante ni les échos yéen kaay ñu ko daal di xëyee ci bésu tey bii. ñu daal di koy ndar képpe ak wàllum tàggat yaram ak li nga xamante ne moom mooy coupe du monde Qatar 2022 bii leen nag influenceur sénégalais bi nga xamante ne nag moom mooy Khaby Lame daal di nekk ci réewum Italie moom mi leen nag daal dinay gagné jackpot bi ndaxte nag signé na li nga xamante ne moom mooy contrat ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Qatar Bank National ñoom ñooñu nag daal di génn 458 000 dollars yoo xamante ne dañ ko ko fas yéene jébbal ngir nag mu defal leen promotion ci li nga xamante ne nag moom mooy réseaux sociaux daal di jaay li nga xamante ni moom mooy seen i produit bépp produit boo xamante ni nag dafa jëm ci li nga xamante ni moom mooy bile coupe du monde ñu daal di koy jàpp ci réewum Qatar daal dinay jaare ci bile influence Habila ma ci fàttali ab tiktoker la nekk nag ñaareelu personnalité bi nga xamante ni moom la ñu gën a suivre ci biir réseau sociaux yi moom mi leen nag ñu ràññee lool nin leen ko waxee gagné na nag jackpot bi ndaxte nag nekk noo ko xamante ni àdduna bi yëpp dañ koy topp yile xibaar nag confidentiel Afrique moo ko daal di biral jërë ngeen jëf mbokk yi loolee moo fi yesandi woon ci ay xibaar ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy Diaspora 221 ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba incha allah jaa ngeen